wa man nasiya ku fàtte woon fardan ab farata min aadaihi ci cëri jàppam nu seet fa in tadakarahu su fekkee fàttali na ko bil qurbi ci jege day door a àggale njàpp mi rek fàtte ni farata sàngam du defuma kon faalahu na ko def wa baada baadahu ak la ne ca gannaawam dara toppoon na ci bu melul ni tànk tànk moom boo ko raxasee boo ko fàttee gannaaw ga nga def ko dara. wa faalahu da koy def wax wahdahu moom dong wa aada dam indiwaat ma salla dam julli woon xablahu jiit lool wa in taraka su dafa dafa bàyyi tam ab sunna faalaha da koy def wala yuidu salaata te du baamtuwaat julli gi ñoo ngi jéggi lu baax a baax dañoo seetlu diggante bi ni góor gi indiwu ko moo tax du baamu salaata julli dafa bëgg mottali njàpp mi por bu deetee julli fekk njàppam complet wa man nasiya lu mu atan ku fàtte ab ab digg bu ci yaram mën nañ ko wax ci waxi walla ab deneer ab digg bu tooyut rëy na wala tuut na xasalahaa na ko raxas waxdahaa moom dong bi di yetin ànd ak yéene njàpp mi baax bu fekkee fa mu ko fàttalikoo la ko raxas rek lu mu yàgg-yàgg njàpp mi baax bu fekkee fa mu ko fàttalikoo la ko daldi waaye nag wa insha allah su fekkee julli woon na qabla zalika la jëkk ba mu koy fàttaliku di raxas ah kon fokk aadamu baa mu julli ga ndax julli na ko ci njàpp mu sottiwu wa man tazakara ku fàttaliku al madmadata galax ndikoo lu demee ne moom loo xam ne sunna la wal istinsaaq mu fàttaliku ni sarax ndikuul baada an sharaa fi l wajhi gannaaw ba mu sóoboo ci raxas kanam te raxasu kanam moom di farata te di sunna te kenn du fu bàyyi farata di arrière dellu ci sunna de sunna nag lool kon falaa yarjiu bu mu dellu ilayhima jëm ci galax ndiko serax ndiko ndax sunna lañu xataa yu timma bu mu matal wu doo ahoo njàppam bu boobaa nag mu door a dabaatal galax ndikoom ak serax ndiko wa fadailuhu ay ñu taxaw foofu rek darsi bi di ñëw ñu jël ay ngëneelu jàpp allahuma